nuyu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi di leen balu xaq di leen balu xaq di ñaan yàlla ñu yàlla defal tawfiq ak ndimbal ak yokk ak jëriñ tey ñu bëgg indiwaat beneen jikko joo xam ne bu am maanaa la waaye bu am solo la ci seen dund wala jikko jooju amee na ko solo ci biir sunu dund loolu lu mat di bàyyi xel la tàngoor wu ëpp ak yàkkamti bu ànd ak njàqare man na indi ak dafar bu re ci nit ci sa yo xamee ne amoo ak dal man ngay def lo xam bu ko wona def sa yo xamee ne ak dal man nga xey xey di rek nit xey na xey rek gis lu ko nakare ci nit mu song ko rek bakkanam def kon lool lepp tangor nak ñiko amul bari wut waye ki ci gëna jëriñu mooy ki ko mën a saytu ki nga xam ne diminué na ab xolam walla mën na lu bari ci am xelam ba bu ko aw tàngoor dikkalee mu xam ni muy jëflante moom isa nga gis lu la naqari nit di ko def nga xool xool mënuloo ko muñ nga am noo waxee mbaa nga am noo defee rek sa bakkan dem ci mbaa sa sa dudd yëm bari ay mbooloo mu baree bari mu ñàkk seen bakkan fekk na gis doon naqari ñu naan ñàkk am sago daf ci dugg far def ca bari na lool lool lool yàlla rek xam moo xam seen mbir moo tax yonente bi loo gis rek jàngale na ko ngir doomu aadama bi ak dundam mën a sago bi mooy tax mu mën a muñ loolu xam na muy jëflanteeg kële bu doon fee ne tey dama koy seet bu fekkoon Seydina Hamza bàyyi mbir mi rey nañu bari mbaa mbaa rey nañ ko ba yàgg xool Abu Jahl bi mu ñëwee fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli Abu Jahl di ko saaga di ko wax wax ju ñaaw boole ko jël yar bi mu yor di ko di ko di ko di ko teg yonente bi agal la muy def ànd ak sago Abu Jahl wax ko wax yu salte yu doy waar yu naqari dégg Seydina xam ne ca àll ba la jógee ñëw dégg ko wàccul fasam sax naanul ndox jot wër sax kaaba gi fekk Abu Jahl fam nekk ba mu ñëwee laaj ko de dana ko tàyyi xaw si gën yoroon ba lexub Abu Jahl bu génnee deret Akramatu Abi Jahl doomu Abu Jahl mooy taawam jug ba koo song ak yeneen gaay yoo xam ne ñu ngi bokk ci Banu man mi maa toog doomu lu ma ko waxut ba ne ko nag ñaar boo ko ñaar boo ko ñaaralati kenn du ko wax ci ko suuf ne ko xanaa xamoo ne sama doomi mbokk te man maa ci diinam fekk jéggaloogul sax loolu sago bi yonent bi am ëppalee ko ñëpp moo waral mu mën a dégg kàddu ko Seydina Hamza bi ñu ko déggee mënu koo muñ kon ku la ëpp kooku moo daq duma moo dàq duma moo gën a mën a xaj moo tax bi newoon na yaa Aïcha inna allah yuhib rafiq rafiqun يحب الرفقة يلا دفا دفا دفا دفا دفا دفا نيوانتو دفا بقى أن ما كان أفضل بقي كدل أم سقط ويعطي على الرفق ما لا يعطي على على العنف يلا دنا جوك عشان دانك الأكتي أقدر أكسر لمن دول جوك ممكن تبدلهم أكثر أكثر بكل جنس ليك ليك ليك ليك li yàllay joxe ci ak ñeewantu ak dal ak topp mbir topp ko nànk nànk nànk di ko lijjanti ba mu sot yàlla dana ci joxe lu mu dul joxe ci ak yàkkam bi ak tar ak métti ak bëgg ko lijjanti léegi rifqu mooy tamahul mooy nànk nànk saa su ne mën ngay gis loolu naqari waaye dell na ndànk rek kër gi ngay dund mën ngay dund ci kër goo xam ne nii tey yaa ngi gis waajur jigéen wii ñu di ko def loolu naqari masalan waaye nag bit tamahul nànk-nànkal ak sago boo am ci lépp lijjanti ko ya nga amee ji yoo xam ne xam nga ne boo songoon mën naa jur yeneen yeneen yeneen yeneen bët yu bëree bëri kon loolu lépp di ay bind yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko jële nañ ci abu darda mu jële ci di mu ne man utiya xazahu min al rifq faqad utiya xazahu min al xayr képp ku yàlla may ndànkal ak dal ak teey ak teey mbir di ko seetaan dal di ko saytu xam fi nga koy jaar yàlla jox na la yu wépp xeeti yu wépp daje na fi yow jëlee nañ ci yonent ba tey mu ne at tudadu fi kulli shay'in xayru illa fi amalil axira lu mu mën a doon nga def ci ndànk ànd ak teey ak dal ba am la nga ca bëgg baax na ba mu des jëf ji jëm alaxira jëf ji jëm alaxira moom juróom ndànkal la kooku moom bu doon am pax la gaaw dugg ci biir ñu suul la jëf ji jëm alaxira am na feneen fu wax ne ku ñuy wax Sahl ibn Saad moo ko jëlee ci yonent bi mu ne al anaat min allah diig ak ndànkal ak tey ak dal ak sago foo ko fekk xamal na ci yalla bayiko ñu bari recc nañu leen tax a rëcc xol dañ wax ak nit mu tontu leen deg rek ñu gaaw yóbbu seen loxo ci ci dënnam koko ya, jaaref def ala am amna ci yo xamne da ngay wax ñu ay kàddu suuf rek nga gis seen dënn jub ñu jël xatri bi door ci suuf gis nañ ko ba tay ko xamne ci bisub aljuma jawla sant da ñew ci bigi li wax ak mom rek ngor sa tontu ko rek mu xëcc yóbbu ko ci gannaaw gi rek door ci suuf يلا خلنا نيجي أجوا ولا نجلي نجفي جتوا ما ميكو فات موري تكو لول بنن تل بنن بنن بنن مثال ولير نجبر سيدنا موسى ميكو هناك أكاد منو كم من مقطع بوم سدود كل جو كيام فا فوكسه فقضى عليه ما من في دبر جاي فجاي مات ليكو كنا نقرك أجدنا ما ينيكو كمراي ورخ ساسن سلخ بوم قاو ولا بقاوي نجتيه سام خلا nit ñàkk na sago tàngal diw ba mu tàng ñëw fekk borom këram mu tëdd mu xëpp ko ko benn xew-xew xew na nit ñàkk sago daal di jël ci rek soo def ci posen jox ko mu naan te lu ci nekk su àndoon al al anaat muy diif ak dal ak ndànkal yàlla dina ci génnee génne bu rafet ba yow da dem ne ma ne ay waa ji lii de su ma ci doxee woon nangam ay waa moo tax saa su ne te lii yonent bi sallallahu alayhi wa dañuy jàngal dellusiwaat ci suñu njariñ maam suñu dund ñun moo tax mu ne al anaatu min allah waaye saa yoo profité ba def loo xam ne nii da nga ko rëcc sa diirub dund xamal ne loo mooy al ajala te min asheytaan ci seytaan la bàyyi ko da nga gis loo naqari saa su ne di gis loo metti waaye li ak li la metti góor-góorlu sa bopp amal ak dal ba fexé ba yow boo koy lijjanti na doon waxtu wi nga àndeeg sa sago bu la wëree na baat bii boo ko waxee da nga ayoo tàngoor bul wax mel teg bàyyil ba sa sago del nga dogo wax boy tontu nga dogo tontu na la jaral tej sa buntu néeg na la jaral génn kër gi dem doxé nit génne nañ ko ci kër fekk na ba ñaka a mën muñ wala ñàkk sago mu gaaw wax ñu génne ko foofu nit ñoo lañ ko tumal ko benn mbir xolam dëndam daal di tàng kasaas mu jekki jekki rek dóor ci ko tuumal noonu lañ ko yenoo ya, yóbbu ci kaso bi yàlla xam ne bi ñu koy génnewaat ci kaso bi daal bu jàpp te waxambaane boobu bañ ko fay dugal fuñ ko teg doole rek saa su ne na nga am sago na nga ànd ak dal na nga ànd ak diib akub tey te xam ne lépp lu ànd ak diib akub tey akub dal ci ni ngay dundee njariñal àddina ngi ci biir njariñal alaxira ngi ci biir kon nag yonente bi moo wax soxna Aïcha ne ko yaa Aïcha inna allaha rafiq yàlla ku ñeewante la ku ànd ak dal la ku diib la te boo xoolee duma yëpp duma duma yu métti yëpp yàlla mën na ko xeet duma yu métti yëpp mën na ko waaye doomu aadama yi tafaar am seen diggante euh, ñi borom dënn yu tàng yi ak ñi ñàkk ñuy def yëpp yàlla na ko waaye defu mooy li ma wax démb rek saa su ne gis nañ ne ñun man ba ma gënee àddina ba tey misaal def naa fi ay bàkkaari bàkkaar bàkkaar yooyu bu fekkoon yàlla suñu boroom boo defee bàkkaar mu daal di lijjanti léegi ci saat ñaata doomu aadama ñooy faatu ñaata ñaata bis la ñuy xëy di wax lu dëgg mbaa ñuy dund ne bi lu ñu def yàlla suñu borom dal ci suñu kaw kenn ci ñun du am la mu kenn du dund te ci njumte daa mel ne ñun ci njumte la màggee ñun moo tax yeneen bi ne kullum ni aadama xata doomu aadama june mën ngaa jub te mën ngaa sax ci ak njumte wa xayrul xattaa'ina tawwaabuun waaye ñi jum ñëpp ñi ci gën mooy ñi nga xam ne bu ñu jumee jaltu gannaaw wane ne dañoo jum Seydina Omar ba mu yàgg daal di wax ne bis na ngi tey bu kenn joxeete lu ëpp nangam ci can bu kenn joxeete jigéen lu ëpp nangam can gi na yam barab sàngam nañ ko yemale am jigéen joo xam ne ba mu jébbaloo yàggan daan ne ko Omar nag wax ak yow jot na bu fekkee yow yaay fekk lu yàlla rëdd akub yonenteem nga ñëw di ci dugal sa kàddu yow wax ak yow jot mu geesu xiin xiin xiin xool jotaay bi mu ne kooku kan la mu ne ko mën a diw saxaaba yi mag yëpp sëgg mu ne ko Omar li yàlla wax ne wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ihdahunna qintaaran falaa taaxudu minhunna shay'an ataaxudunahu buhtaanan wa isman mubiina xanaa yow jàngu alxuraan bu ngeen leen joxee loo xam ne lii can la ngeen dem ba am ci beneen gisin ako doxalin bu ngeen leen joxoon góor a góor góor mooy ay jëli wurus bu leen ci jëlaat dara bu ngeen ko jëlee ak tooñaangeel te yéen a leen ko joxoon Seydina Omar toog ci minbar bi daan ne ñëpp la gën a dégg fiq yow Omar ba ci jigéen saxaaba yi gën a sëgg ndax boobu moo jiite julli ñëpp li li neex ci Seydina Omar Seydina Omar li mu neex li ko yàlla defal mooy fu ko fekk mu nangu xoolul darajaam xoolul ba xam su nangoo dëgg ji ñu mu yëf dañ ko ci xeebam biir am na ñoo xam ne mënuñu mënu fexe ba ñu nangu dëgg ji ci kanam nit ñi ndax dañoo jàpp ne bu ñu nangoo dëgg ci kanam nit ñi def day manqué seen daraja day tax ni ñu waroon a yore nit ñi day manqué fekk loolu dara da ci dëgg pexam seytaan la saa yoo nangoo dëgg ci kanamu ñi nga yëlif loolu ak dolliku daraja ci sa biir mbir yàlla day la yëkkati ci biir te ñoom dañ lay gën a fonk te loola day day da leen di dimbal ñoo xam ne kon diw liy njumte la woon waaye kon nii lañ ko war a defee waree su ko defee nii war ngaa taxaw yow fii kilifa gi wax ak mbooloo mi ne damaa juum ñëpp xam ne da ngaa juum tey du la wàññi dara da la waaye am na ñu bari seen xol diis la ko sa xol nag diis lu gi ko diis lu nga war a xam ne lii fexam seytaane la lépp nag day fekk nga ànd ak sago yaa ngi wax ak gone mu ne sëñ bi da ngaa juum nangam na nga daal di fees dell nag fees dell mel na ku ñu ëpp mënoon naa ñàkk fees mënoon naa ñàkk man ngaa xam ne kii gën a la waaye lii ma la wax nii moo neex yàlla moo neex yonent bi moo neex mboolem ku baax ndax mooy li lay dimbali yow nga bësanteeg moom bësanteeg moom dama jàpp te génn xam ne da ngaa juum am na ci koo xam ne juum na bés di bés di rey nit di bés di rey nit di rey ay nit ba rey daanaka dëkk da nangu jumte ci biir pareel la ko nangoo benn soxna moo la ko de ba nga xamee ne dangaa ngaa juum yàgg na waaye bañ sa daraja rëcc la képp a tax nga rey mbooloo mii nga ko waaye boo gisatu ku la dimbali mu day sëkk ngóor soosu noonu la ñàkkee ak nguuram te li ko xañ nguur bi ci moom la bàyyi ko daa rey nit ñi ba noppi fekk na ay soldats yi ñëw yoo xam ne ñoom moo leen taxaw a jóg saa su ne del am sago saa su ne del am dal te xam ne nangu gi ngay nangu seen jumte dala yëkkati waaye du la wàññi saa su ne na nga na ngay wax wax yonent bi kullum ku doomu aadama kuy doon doomu aadama ku xam aadamaay sa maam ku ne juumaa kon nga mën ngaa sax ci ay njuumte kon nag dëgg la sa kàttan sa përëb bii sa doole bii sa dënn bu tàng bii góorgóorlu loo man ci àddina bul gaaw wax baat ba la yóbbu indil musiba benn misaal mii laa koy tëjee wax naa ne léegi ne yonente bi neen inna allaha rafiq yàlla ku dal la ku ñeewantu la ku mën a jiibal mbir yi te mën koo lijjanti ca saasam moo tax no yuxibu rifqa yàlla daa bëgg ndànkal ca njëlbéenu islam la Seydina Abu Bakar waxal saxaaba yi ne leen nar ngeen gis lu tiis nar ngeen a gis lu naqari ci seeni noonu waaye na ngeen ànd ak dal te xam ne da nga da nga da da nga bañ nit tey bu ëllëgee sa mbokk lay doon ci islam allahu akbar da nga bañ nit tey ba xalaat ko war waaye bu ëllëgee sa mbokk lay doon ci islam bëgg Seydina Abu Bakar waxee dem nañ dund ñu bëree bëri duggaat ci lislam Seydina Omar biir Madina la wax yonente bi ne ko boo ma mayee rek abdullah eh, eh, suhayl ibn amrin boo ma mayee ma buddi ñaari bëñam bi yonente bi teg mu ne ko dimbali ma rek nga may ma buddi ñaari bëñam ma màkk la nekk di discours ay discours yoo xam ne lu mu ko doog a fàtt ñu bëri bañ la bala ngir moom yonente bi ne ko sàkku ay bëñam ma buddi su ma ko defee yàlla dana ma raylu ci madinatu mën a war seen loxo yi la koy jaar te ab yéefar la ne ko bis bisa nga ñëw boo xam ne ngóor sii ngay bëgg buddi ay bëñam dana taxaw taxawaay bu rafet ci lislaam ñuy dund di dund di dund ba yonent bi làqu ci gannaaw juróom benn fukki at ak ñett ñu denc ko ba nopp saxaaba yu bari jooy jooy yu méttee méttee méttee arab yu bari génn ci lislaam màkka bëgg a génnaat ci lislaam ba giir yëpp taxaw teemu ci delluwaat ca indiwaat xërëm yi ci biir euh, kaaba bi tabaxaat giir gu ne ci la nga ne góor soosu moo taxaw daan ne di wax ak waa mag yéen waa mag yéen de bu kenn gisul dëgg yéen gis ngeen dëgg yéen de bu kenn xamul lu xew xam ngeen li xew yéen de kàttan gi ngeen amee woon ak doole ji ngeen amee woon Muhammad yàq na lépp génne ñetti téeméeri xërëm ak lu teg fii ci kaaba gi te seen kanam la ko def am na bis boo xam ne bi muy ñëw fii ci Màkka amul kenn ci yéen ku dugal këram di làqatu ngir kattanam bi ko yàlla defal te ci bit la ko defele te foogu leen ko woon mukk ci seen dund ndax ku ci nekk sa bàyyi weddi na ko nga weddi na Muhammad na ba làq gaa yi nga xam ne nguur ak bëgg daraja ak bëgg dund moo leen bëgg dellu mooy bëgg ñu bëgg indiwaat fii ak lënna ci mag xam ngeen ne ñii dañ leen a bëgg yiit waaye waxuñu leen dëgg tey ngeen a dellu ci leer gi ngeen gisoon bu fekkee nag Muhammad li mu fi indi woon su faatoo mu jeex kon kay daa nag jëre yàlla di ko yónni su fekkee su faatoo mu jeex bëri woon yàlla di ko yónni daan ne waaye nag maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di fàttali yéen waa Màkka bu leen bokk ci mujj gëm yàlla doon njëkk a weddi yàlla gaa ñëpp di jooy baat ba benn laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ngóor si sayidna awat bëggoon a budde ay bëñam moo wax lii ñëpp dellu sa dellu sa ci li sax kon sagalu am solo la beneen bi ab benn waaye boo xam ne kilifa la moo jiite jullit ñëpp ñu koy wax Haaruna Rashid moom soxnaam la mere da koo aaye woon ne ko mbirum état yi bu ci dugg bu ci duggat ñu indil ko ab bataaxal ne ko sa soxna si moo bind bataaxal bi am lu doon lijjanti ci réew sàngam ci biir néegam la ko fekk soxna si nag ku amoon daraja la ku amoon xam-xam la waaye ba nga fekkee ci biir danep te nga xam ne soo fanaanee ci suuf soo xam ne maa ko yilif li fekk jant bi sox soo fanaanee ci suuf soo xam ne maa ko yilif fase naa la ñetti yoon te boo fasee nit ñetti yoon faw keneen jël koo fekk na ngóor si daal soxna si dëgg soxna si rek bëgg bëggu feneen waaye li ñuy wax ni tàngoor moo ko jàpp naka loo la ko wax duggaat ci pale bi toog bu tëj bunt bi nga xam ne ci fa la soxna si jaare soxna si fëgg fëgg fëgg mu tëj ne suuti beneen bataaxal di ko ñu ne ko dañoo juum dañoo juum waaye du sa soxna si keneen moo ko bind diw moo ko bind mu ne waaw mu duggaat ci biir di jéggul soxna si soxna si faalewu mu ñëwaat ci pale bi toog woo borom xam-xam yépp ne leen man kat wax naa loo xam ne xam naa ak tooñaa ngeen te sama soxna si am ak naa moom njaboot te dimbali na ma ci lu bëree bëri alalam day daanaka jeexal na ko tax ngir sama jëmm ji te bi ma koy wax lii xam naa aw ma sogo ci li ma doon wax ak nag boo fanaanee ci suuf soo xam ne maa ko yëg bi so fas naa la ñett yoon te bëgguma keneen jël ko muy xam ci moom secret nguur gi ak état bi borom xam-xam yi toog lëmbët téere yi xool nday jor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw kenn ku baax koo xam ne ku xelam naa ci la ñu koy wax Abu Yusuf toog ba mu yàgg ne ko waaw yow lu la xiir ci loolu mu ne ko wallaahi damaa juum waaye a dimbali rek na doon lu gaaw balaa jant so ñu ne ko giléem moo fi gën a gaaw te ko waree balaa moo génn dëkk bi jant dana so ci kawam ndax yow mu toog ba mu yàgg jàpp bopp bi jàpp bopp bi abu ne ko waaye nag gis naa pexe mu ne ko ah mu ne ko gis naa pexe boobu fekk na ñëpp gàkk mu ne ko luy pexe bi mu ne ko suñu borom leen wa annal masajida lillahi jàkka yi yàllaa ko nasa soxna fanaan ci biir jàkka yi yàlla ñu yàlla may sagu loolaa ko tax a jotaan tis jotaan tis maanaam waaye kon dafay ñàkk waaye kon dafay ñàkk